waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, waa Badru TV ñu leen a nuyu di leen a ziare di nuyu waa Sàmm gi association di nuyu ñi nga xam ne teew nañ fi yëpp si bési yi anniversaire bi waa di wax ne discours bu ndaw la rek li nga xam ne moom la ñoo sànni ay kàddu di wax ne tey moom la ñoo màggal suñ bési juddu muy suñ fortième anniversaire yi waaw fortième anniversaire bi moom lañ nekk di màggal ni bési tey fii si ñu joosang si kër président Aliou waaw su ko defee rek di wax ne Samm ak Association ñu ngi ko starté year 2017 si lañ ko starté start bi nga xam ne nag moom lañ ko dooree mooy gisoon ne daal war nañ pour ñu booloo dajaloo seet naka la ñoo mun a liggéey yaram jur yóbbu ko si beneen level fii si réewi Gambia buñ ko formé ñun nine members ñoo ko njëkk a door waaye tey alhamdulilah si kaw ndimbali yàlla suñu borom members boobu yaatu na ba nga xam ne ëpp na 60 kon loolu yëpp yokkute la li nga xam ne ñu ngi ko santé yàlla. bokk na si lu njëkk gomlo gëmloo memba yi mooy ne euh, yarkati jur da nga wara gom sa boppa te yarkati jur da nga wara am bëgg-bëgg si jur gi da nga wara am passion comme niko anglais di waxé lool yop alhamdullilah yalla tay def na si lu bëré bëri. ñu won leen ne euh, yarkati jur luñu soxla ci mom moy ne jur gi fo nga jox leen seen gidda jox leen seen ciir moy ne di leen tabaxal neeg yu baax di leen seytu seen walu wër gu yaram di leen jox dunda bu sella dunda bu doy lool yop bokk na li nga xamné ne nañ ko tay moy memba si bokk na si li nga xam ne gëmloo noonu leen ko mooy ñu fexe seet jiw yi nga xam ne birit yi nga xam ne ñoo gën si wàllu jur loolu yëpp memba yi tey dox nañ si dox bu yaatoo yaatu ba def nañ si ay jéego bokk na si si li nga xam ne tamit def nañ ko mooy ne Samaga Season dem na ba yaatal na liggéeyam ba jéggi na frontière ba nga xam ne iya 2018 invite ñu trade fair si Dakar nga xam ne demoon nañ teew fa si nga xam ne Adam ñoo ñu invite doon président Aboukan loolu tamit nekk na li nga xam ne association bi jëlee na fa njëriñ bu bëri ba tey suñu sob bu ñu am nii nga xam ne business bi ñu ngi ko am ak Ndiaye Poultry Farm di euh, Babacar njaay ak Mami Sène nga xam ne ñoom leen ko amal partnership si turu association bi loolu yëpp si jéego yi nga xam ne xam ne am nañ ko. tey soo seetee association bi am na achievement yu bëri yi nga xam ne daf koy def mooy si wàllu tubasi même ba si association bi doomi association bi dinañ jaay lu ëpp 1200 xar loolu yëpp jéego yi nga xam ne la association bi ba nga koo def mi ngi taxaw si wàllu mbiri tubasi mi ngi taxaw si wàllu ndawal bu baax a baax a baax. bokk na si jur yi nga xam ne assison gi am nañ ko am nañ lu mel ni ay xar luñ si am da ngaa gis ne ëpp na 600 xar li nga xam ne membre si am nañ ko. bokk na si li nga xam ne am nañ ko si béy moom tamit ëpp na bu teg bokk na si li nga xam ne am nañ ko si ay ganaar ëpp na 800 ganaar yu teg yi nga xam ne ay different breeds ñoo fa nekk ah, di ay different ganaar yi nga xam ne ñu ngi fa. bokk na si si li nga xam ne si fas si membre assison bi am nañ ko am nañ lu dem si ah, six fas yi nga xam ne membre si am nañ ko. si wàllu nag am neen lu toll si 19 nag li nga xam ne member si association bi am nañ ko si wàllu xaj member si association bi am nañ lu tollu si 8 xaj si wàllu pitax yi tamit different type of breed pitax association bi am nañ si lu ëpp 200 uh, lu teg yooyu yëpp ay jéego yi nga xam ne la association bi mu ngi ko dee def ñu ngi tàllal loxo nag association bi di wax ne daal uh, jafe-jafe yu ndey am si wàllu yar jur gi mooy ne si mbiri dunda bi dunda bi daal seer na te jéggi na dayoo te loolu daal bëgg neen euh, nguur dugal si loxoom wala ku si mën a jàpp nga jàpp si ba gis ne dunda bi am nañ ko si lu yomba bi ko tey suñ ne jur ne dunda kon moo tax dunda boobu duñ mën a tàggoo ak moom loolu bokk na jafe-jafe bu ndee dunda. bokk na si jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dunda mooy wàllu vétérinaire secteur vétérinaire bi dafa des doyagul lool bëgg neen gaa yi see góorgóorlu waaye bëgg neen ñu gën a yokk seen jéego. bi ko léegi-léegi nga am si kiis yi nga xam ne daanaka da ngay seen ne jarutoon jur gi war see dee waaye léegi-léegi nga deele si xar li nga xam ne du kiis bu garaaw kon secteur boobu tamit soxla nañ ko lool vétérinaire yi mu gën a yokku te ñu gën a am ñu gën a xariñ ci wàllu liggéey bi bokk na si euh, jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko dee am mooy ne nguuri Gambia duñ du ñooy support yarkati jur yi duñ leen dimbale loolu nekk na jafe bu ñoo joytu soo seetee suñ naataango yi nga xam ne ñoo ñu wër lu mel ni Sénégal lu mel ni mari da xool ne seen nguur yi dendee taxaw seen doom yi yi nga xam ne ñoo yëngatu si wàllu jur waaye soo seetee fii si réewi Gambia da ngay xool ne jafe-jafe bu ñu am la jafe-jafe bu métti bokk na si li nga xam ne ay waruwaay soxla nañ ko bi ko tey soo seetee sàmm gi assison dem na ba jéggi na kombo gi ba nga xam ne mi ngay dugg si kaw gi di dugg si dëkki àll yi fu mel ni ñoomi fu mel ni jokaadu fu mel ni farafeñe CRR ana région bi foofu yëpp am nañ fa ay memba fu mel ni URR bi côté tundi Basse yooyu yëpp tey association bi am na fa ay memba kon da ngaa ne soxla neen ay waruwaay yi nga xam ne léegi-léegi ñu bëgg a jóg dem seetu suñu memba yi mun a waxtaan ak ñoom ñaax leen waaye léegi-léegi loolu yëpp daf day nekk jafe-jafe si ñun bokk na si si li nga xamne ne tamit dañ koy joytu lol kon dal ñu ngi o nguri Gambia di o domi Gambia yi nga xamne ne yalla yàlla may na di wax ne investment bi dafa doon li nga xamne ne borom doole yi ñu dugal ci seen loxo tay so seetee dekk bu melni Sénégal si borom barke yi ministre yi businessman yi tay ñëppoon si duga ko xam ne Luc Nicolaï nga xamne ne fay promote euh, mbiri bër euh, mbiri bëri yi ni nekk koo tam businessman bu mag la ci Sénégal tay soo mi ngi si xari ku ñoo wax Baba Jow nga xam ne 2018 bu ñoo invite moo nekkoon di richest man in Sénégal kooku mi ngi woon si jur gi kon da seen ne tey soo xoolee réew bu mel ni Sénégal seen doom yi nga xam ne borom barke leen borom doole leen ñëpp ñu ngi yëngatu si jur gi moo tax ñu ngi oo réewi Gambie di oo doomi Gambien yi nga xam ne ay borom barke leen ñu ñëw fexe dugga si liggéey bi mun koo yaatal dugg si jafeñut ñëwal nga gis ñu mel ni ñun rek incha allah rabi ñu melni ni même ba si assison bi so leen gisee neen la tété neen la gunge won la yoon bi bi ko ñom tay suñ si ñëwé moy mëna a tax affaire gaaw moy mëna tax ko bëgg yobbu ñu mëna mën fa ñun leena garantie garanti ne suñ ci duggé amul rëccu investment bi nga xamné la perte amul si na nga jaar fo wara jaar rek so fa jaaré du am ben rëccu kon lool yëpp bokk na li nga xamné ñu ko talal loxo si gatal dal fogna li la leen mëna di wax ne secrétaire Babacar jeng mi ngi ni tok ci table bi ku suñ mag Badou Ba joge si ñoomi nga xamne pour dafa lu sàmm gi association di wax ne ñu ngi jéggi di dem si dëkki alé di dem si rural Gambie bi pour mëna yaatal liggéey bi ba nga xamne mu daj réewi Gambie yëpp ci gatal kon ñu ngi jaajeufal wa sàmm association di jaajeufal wa batru TV batru nga xamne suñ télé la suñ TV la bi tay so sété batru Badru yëpp membre leen si gi association kon da nga xol ne amuñ seen fay sàmm gi am dara ñu gantal ko lu xew fu ñu leen ooyee soxla bu ñu ma mënoon am nañ ko bàyyi tey xam ne ne da ngeen am soxla wax dëgg yàlla xam naa yëpp nu mu fa demee waaye lu métti métti fexe ngeen ba ñëw kon ñu leen a jaajëfal si loolu su ko defee ma jox secrétaire mu sànni kaddu suñ paree ñu jox suñ mag alaaji Badou Ba moom tam mu nettali ñu koo xam ne fekkee na euh, depuis jamono nguuri Jawara mi ngi yëngatu si jur moom tam mu nettali ñu ustuwaar tuuti. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen a nuyu bu baax Badru TV di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax waaw affaire yi yar jur gi moom ñun am nañ si xam-xam tuuti donte amuñ alal ju jur sax am nañ xam-xam si yar jur tuuti parce que yàgg nañ si fu mu ni nii mën nañoo wax ne ëpp naa fanweeri at wala ñaar fukki at ak juróom nangam yoo xam ne ñu ngi si jur gi. soo depuis temps bu nguuri Baba Jawara man seetlu naane ne temps bu am na benn projet bu fi ñëwoon joxoon ñu xaalis tuuti. Ah, ñu jëndoon ay xar Sénégal indi ko Gambia di ko yar ba yafal ko ba ba gis ne suur nañ ñu indi ko abu ko di ko jaay. loolu mu ngi doon si ay at yu yàgg yàgg fu mu nekk nii soo depuis boobu ba léegi bàyyi wuñ ñu ngi si ñu ngi am ay xar yu góor am yu jigéen di yar di jaay tabaski soo fu mu nekk nag lu ñu gis mooy am yari jur guñ doon def nga xam ne ñu ngi doon yar xar yi Gambie ñu di ko wax jalonke gis nañ ne wax dëgg yàlla baax na xar yi wér nañ waaye su fekkee danga nga a gaaw pour gis sa bopp si yaram jur da nga yar xar yi ñuy wax laadum so buñ déwé ba gis né laadum bi am na njëriñ si lañ oh, jël suñu genn wàll alal li ñu def ko si xare gambien yi li ñu def ko si laadum bi so laadum bi gis nañ ne am na njëriñ lool lool lool waaye comme lu gars yi di wax rek mooy xar moom soo ko buggee da nga xonto ba pare da nga ko toog xaar ko so bul doo yàkkamti bi ko soo yàkkamte rek mun ngaa yàqa sa alal so beneen jafe-jafe bu ñoo wax mooy mbiri wér-gu-yaram yi jur gi boobu itam beneen problème la boo xam ni wax dëgg yàlla nguur gi ñu ngi leen si o oh, di leen ñaan yu ñëw dimbale ñu si mbiri wér-gu-yaram yi jur gi ñaara ba teg itam mbolam doomi Gambia boo xam ne borom alal nga ñu ngi lay wal ne la di la oo di la wal ne la su fekkee ñëw nga si yaram jur gi yow da nga xam ne jur gi yar bi am na solo te loolu moo ñu mën a dimbale ñun nga xam ne ay yarkat lañ te amuñ alal juñ si def soo da ngaa gis ne soo ngeen ñëwee dimbale ñu si yaram jur gi dana baax trop trop trop parce que mooy tax Gambia gis seen bopp si yaram jur parce que soo bayee xel taay mi tabaski su jotee nga gis doomi Gambia yi ni ñoo sonn si frontière bi di dem di jëndi xar di ñëw da nga xam ne Gambia sonn nañ si mbiri yaram jur So ñu ngay ñaan mboolem ko xamne am nga alal ah, ñu ngay ñaan ñëpp ñu génn ci ñew di ñu jappalante ñu yar jur ba yar jur mo yóbbu rew kanam waaw lool da lañ ci amoon lu ñu wax ci lu assalamu alaykum wa rahmatullah waaw alaykum ah, wa Badru TV na sargal de len jaajëfal ñeeka si leen comme niko president alulo waxe euh ah, yeen part na ngeen si si ñun no def ndax ah, bokana si ñaaral ñu bari ñi nga xam ñu ngi dëkk bitim rew duñu contact so waxee ñu ne ci interview Badru bi lañ la gisé so Badru TV ñun mu nañu ne partners dañ with samagi association bu ko loolu comme niko ko président Aliou Lo waxé ah, samagi association tay ñu ngi magal seen ñenti at ah, si ñenti at yi amna na dox yuñ dox way ba légui amna ay jafe-jafe bokk na ci dox yi ndox mooy fexe ba am li mooy associé am ay membres membres yi am ay jur yu ute comme ni mu ko waxee si si waxam am nañ ay xar ay béy ay nag ay ganaar ay pitax waaye tamit ah, ma gën fuko si jafe-jafe yi ndax jafe-jafe yi moom nit ki looy def rek ak lu mu dem dem kanam foog mu am jafe-jafe ah, bokk si jafe-jafe bu gën tax ñu naan jafe-jafe mooy euh, nguur gi taxawaay bi ñu war a taxawee yarkati jur ci Gambia du ma ne waa sàmm gi waaye yarkati jur ci Gambia euh, taxawaay bi soxe na lool des na lool euh, dama ci dee bañ fippu suñ ne waaw ñu ñëw war a jóg uti nguur gi ma ne leen déedéet nguur ñun as an association ñun li ñu nguur sant mooy nga dem nga register nguur ma war a dem fi ñooy register yi association moo xam association sangam ak sangam ak sangam ak sangam register nañ si lii la ñoo yëngoo xaaral ma oo leen teg leen ci taabul ñu waxtaan ma wax leen li ma bugg a def ñu wax ma liñ bugg a def amaana buñ dajee jëfin bi gën a yomba comme ni ko ñëpp xamee mu ngi dem si tuy ñaari at yu tegu ñu ngi wax suma ruminant project suma ruminant project bi mu génnee bi yàlkat yi yëpp daanaka seen ah, ah, dañ dañ xawoon a caaw bi mu génnee daanaka yàlkat yëpp dañ xawoon dañ xawoon a caaw ah, because biñ suñu waxee twenty something million dollars ku nekk yaakaar nga ci gis sa boppa waaye unfortunately comme ñu ngi wax I think ñu ngi si taat ya bi waaye ba léegi ah doxaguma ba gis yarkat bu ne man njëriñu naa si nangam at at one time ñu ngi confrontation ak ñoom ñu wax naan institutional development la gars yi di def ma ne leen projet bi loolu du responsibilité projet loolu responsabilité nguur la soo taxawalee institution yaa ko war a defar yaa ko war a dooleel projet bi su ñëwee pour njëriñ askan bi njëriñ bi dafa war a àgg ci askan bi su boobaa askan bi mën a taxaw ne ah ma bi si la amee toogu ñii ne projet bi si la amee table ñii ne projet bi si la amee mbaar su boobaa da nga wax bi li taxoon mu jóg njëriñ na ko waaye su dee projet bi ba léegi ñu ngi wax institution development kon projet bi waroon nañ ko tuddee leneen lu dul Sumaworo Minane dañ ko doon tuddee institution développement waaye su ne mi Minane mooy ñi nekk si yar gàttaku ndaw ki muy xarit ak béy yi projet bi dafa ñëw pour dooleel leen ndax yaakaar naa soo gisee islamic development bi baag di def loolu comme xam ne ne Gambia réewi jullit la tubaski dañ dee bari luñ dee rey ci ay gàtt mu ne xaaral ma asi projet boo xam ne ñu mun a produce enough ñu xam ne ne Gambia daf dee dem ba last ñu ngi dina xar dina am wala doo am xar dina am dina am bi ko xari bitim réew la war a jógee soo loolu naka la ñoo mën a def mu stop mooy ñu juddale ko fii waaye ñun association bi ak yeneen association ñu ngi def suñu képp talaay ku ci mën a am fukki xaar ñaar fukki xaar ñeen fukki xaar di juddale li nga mën a juddale tubaski bu nekk ñun ñëpp ku nekk da am loo génne loo xam ne yaa ko juddale pour jaay ko waaye it's not enough government te war naa ñu xool comme ni ko ah, président Aliou loo waxee nga xool sax ñi nga xam ne ñoom si lii la ñoo yëngu nga ñëw ooleen ne leen man de lii laa bëgg a dëgg euh, dooleel lan mooy pexe bi waaye yow leen ne yow da toog fële def saa ay mbir ba last minute nga ñëw bëgg ñu ko moomale ñun tamit fi mu nekk nii na euh, is important muy muy government bi muy Gambian people ñu xam ne bu njëkka ñi jàngut nekk ci kaw gi ñoo daan yar ak di def famine léegi ñi jànga nekk si office yi oo am seen compagnie oo nekk bitim réew ñoo mbir mi ñooñu doo leen nax ni nga daan naxee ñële mooy defar ay këyit la ñëw rek signé loo rek ñu rek bi ko doo wax 26 million dollars mais bi yow nga ñëw jox ma benn hundred thousand man ma tub daal su nekk ñun passé nañ ci ci ci jamono yooyu bu jamono yi noonu la na naxee suñu yaay ak suñ bàyyi si kaw gi ku ñu jox 50 thousand rek sign la ay këyit gone are those days you know projet bi su ñëw dañ ko teg ci table mu leer ñoo xam ne lii fii la dugal lii fii la dugal lii fii la dugal waaye projet bi jaxasoo kenn xamatul ba xobee geen bi léegi-léeg nga toog dégg ñu ne Ogadai workshop léegi-léeg bi du jee xaalis bi fa la moo jee ba léegi amul benn yarkat bi mun a taxaw ne su gàtta yi day projet ba ma ko jox foog naa ne loolu lu lu lu daw yaram la is a cause for concern su loolu weesoo nag mooy man dama dee wax su nguur defut doomi réew mu def mooy suñ brothers and sisters ñi nga xam ne yàlla may na leen koom ñu ngi si dëkk bi wala ñu ngi bitim réew na ñëw ñu invest ñi nga nguur su gisee ne mbir a ngay dox dafay ñëw boole si boppam bi ko dafaa bëgg a jël crédit bi suñ gisee ne uh, individual citizens yi private citizens yi ñu ngay invest di am ay femmes yu yu woot ay millions and millions of dollars suba dinañ xam ne ñii ñu jàppa si ñu dem ñu ñàkk ci jàppa ñu dem dañoo ñëw ngoy si ngir nga yóbbaale leen bi ko su ëllëgee ñu ne ñoo la gunge woon so man loolu laay ñaaxee gars yi uh, di jaajëfal suñ uh, mag ju baax yi jógee ba Howard College ñoomi te mu am ku nekk ku am expérience tamit si si si biir affaire si ndax euh, mu ngi si ta génération fekkee na jawara jaaya jàmme léegi mu ngi ci mu ngi ci bar ah so am na dañ dee di muy mu ñoo wax jamono boobu la na affaire neexee woon ndax ñu mun koo dunaa waaw Mr Jeng euh, yow mi nga xam ne yaa nekk secretary general of Saama ji association euh, bëggoon nañoo xam lan mooy plani Saama ji sax dinañ kontaan si tontu ci loolu comme niñ ko waxee euh, sàmm gi euh, fiñ commencé ba fiñ toll tey sant yàlla waaye liggéey buy continuer la bokk na suñ ongoing activité mooy gis nañ ne war nañoo mun a am yarkat mooy yarkat ñu bokka xam nga ñun soo xoolee suñ moto bi mooy euh, suñ mooy Gambia Livestock Support Community ñun ñu ngay try pour build a community community of like ay yarkat mba community if you community luy jëmloo kanam community nag ca participer suñ njëriñ ñëwee si community bi nga benefit so ñun loolu lañ boo gëmloo nit ñi ne war nañoo dem ba léegi afri ñaar ñetti kër boo romba boo fa yundoo rek gis fa ay xar yu baax not necessarily sax laadu moo wadee ba waaye na nekk xar yu baax xar xam ne boo rombee sax da ngaa bëgg a ariye ki xaram yi rafet nañ because back in the days dañ naan am loolu suñ payi payi ku foo romba dañoo taka am yi da ngaa lëf ñoom diw bi kuy ñoom diw bi loolu dem ba réer soo ñu ngay travail pour soxaliwaat loolu so bëgg na ñoo am membership bi mu gën a yaatu waaye tamit mu wasa ano si Gambie bi commencé nañ ko waaye dañ bëgg a yëpp ñu am ko so loolu is one of xam ne ñu ngi koo teg ci table bi going forward second agenda bi mooy ñu ngi am si trade fair ah, very soon dinañ ah, announce di di date jàppo nañ date ba dafa am ne neen event yu mu bëgg a te sooy def mbir yaakamti koo def te te mu sooxe amul njëriñ so si lu bañ a yaaga xam naa yéen du du ñaaka yéen a njëkk am information bi dinañ joxe date si ak ah, place bi moom most likely si Independence Stadium bi la moo nekka so mbiri date bi la ñoo xool bokk na si leneen li ñoo teg ci taabul bi mooy bugga nañ ah, suñ su yàlla àggale mooy suñoo defaat vaccination bi ko fexe nañ ba memba si bu njëkka ñu bari xamuñ vaccination ñu dem ba ñeneen suñ ko def mu seer dem nañ ba léegi da ngaa gis kuy 25 dollars 35 dollars si xaar pour vaccine bëgg nañ suñu ko yàlla mun looyee su su su nekkut free sax mu nekk ay 5 dollars 10 dollars si xaar loolu su demee ba free da nga gis ne ku nekk da nga pingu sa xaar because there is no cost attached to it ñun dinañ mën a jël that responsibility of the cost waaye benefit bi mu delloo ci faama bi ndax tey koo xam ne at nawet bu nekk di nga am benn wala ñaar bu dee ñu jox la free pingu. nawet bi dem ba jeex dee di nga taxaw xalaat ne ah kon pingu bi am na njëriñ next time su la ne fayal fifty dollars di nga gis njëriñ bi so loolu bokk na si li nga xam ne ñu ngi koo ñu ngi koo ñaax nit ñi ba pare ku wax yaru gàtta wax li ñoo lekka boo na si activité bu ñu bu a def mooy fexe ba doomi sàmm gi ñu jot si ngooñ ba pare mu mu yomba suñ ne yomba mooy bu market bi di jaay fii dara su dee benn fifty dollars si différence sax nga am ko loolu dimbale na fifty dollars su sa su sa kanee rek nga am ci beneen saaku so loolu bokk na si activité yi nga xam ne ñu ngi koo waaye suñ private activity bi nga xam ne mooy nekka waxi o doxali ni saama gi for the next couple of months mooy suñ trade fair bi ndax jàppoon nañ ko mu amoon ay gàllankoor te trade fair bi li tax ñu boo koo def du pour ah, compite dara waaye daf dee baax tey ah, ni xar yi génne nii soo ñëwee gis xar yi nga bàyyi ak yow li nga am sa kër daf la day ñaax nga xam ne ah, bu ma naagu amaana maa ngi yaakaaroon ne li ma am doroog naag jamono xaaral ma dem gën a góorgóorlu ti lan ci dundal ci lan ci jox ay garab wala sax fexe ut beneen jiw waaw ut beneen góor góor xaaral naka kuy boo xam ne dina gën a defar gerte gi so loolu trade fair bokk na si lim dee def mooy nga ñëw xool li ñëpp di liggéey amaa na tey boo jógee bugg a dem si éleveurs yëpp si yarkat yëpp visite leen di nga def ay days di wóor waaye trade fair daf laa may rek nga gis téeméeri gétta ba pare nga mun a compé ak gétta bi ak gétta bi nga xool nga ah, kon di kii li la moo liggéey kii la moo liggéey kii li moo na tamit si trade fair mooy daf la day ubbil ay bunta mooy connexion te da nga gis ñoo xam ne nañ bokk association ay at duñ mos a tegante bët kii dafaa ñëw meeting bi kële ñëw meeting bële waaye trade fair daf day create network network bi between yarkat bi but network bi also between yarkat bi ak ah, defarkat yi ah, li li jur gi di lekka between yarkat bi ak ah, koo xam ne am na alalam bëgg naa invest waaye xamul sax ne lii lu nit war a mun a invest la mu ñëw gis ne mu na ah kon nit ñi yëpp ñu nga si li a xaaral ma seet keneen si ñoom ma waxtaan ak ñoom so trade fair those opportunities la day create moo ta ñu bëgg a ñu am trade fair waa Sàmm gi def seen own trade fair génne seen xarit wana li ñoo liggéey def a good network ñu ne neen network with our association network with our institution network even with the government so basically loolu moo tax ñu bëgg a def street fair bi bi mooy ndax Samoji association seen trade fair bi ngeen di waajal ndax xar yi rek ay exposé wala euh, yeneen animal si tamit bokk nañ si waa xam nga Samoji association dañ de baaxoo di wax ne euh, euh, moo tax ñu ñu ñu ñu fesal livestock fesaluñ sib it's not a sheep breeding association it's not a goat association it's a livestock anything loo xam ne jur la rek bokk nga ci sàmm gi moo tax bi la président wax mu la ñaata xar la ñam ñaata béy la ñam ñaata ganaar ñaata pita so obviously man du ma nekk sàmm gi association am ay pita ñu ñu ah, li président Aliou di di fay même mi am xar ma koo fay ñu ne foire ñu ne ma yow bokkuloo so ñun suñoo def foire dafa nekk across the board anybody ku am loo xam ne rek boo xam ne boo xaasee du ussi tolof tolof si foire bi dinañ boobu dañoo sax ñun dina na fekk seet ni ñoo def ba mala boobu ñëw na léegi-léeg nit dina bugga dara waaye ñàkk ko gis du tax mu xam ne bugga na ko xam nga léegi-léeg dañ lay wax ne loo loo amul ñàkkuloo ko waaye nga gis dara rek mu mel ne yow bi ngaa dunda yëpp lii rek nga doo te gis so loolu yëpp daf day mën a xabuñ ci ci transfert President ndax yow ac président sol nga sa dem seeti nguur pour ngi jàppale leen ak lu war seen diggante ak nguur ndax yeneen ko def waaw loolu ñu ngi ko dox because soo seetee lu ñu war suñ diggante nguur dañ ko dee def bam jeex lu jiitu mooy ne am na fu ñu war a jaar bala ñu mën a oote suñ bopp association mooy def nañ suñ constitution register nañ association bi te amuñ si loolu membres yëpp gomloo ne leen ñu dem register seen famille kon da nga xam ne loolu wàccuwaay bi nga xam ne la dox na suñ diggante nguur amusi lolu minister bi nga xamne ne jité agriculture nga xamne ne moo ñun si secteur bu nek moy livestock animal husbandry gisé nañu mom du ben yoon du ñaari yoon. department of livestock tamit den day dem ñom euh ku melni deputy director responsible for health sector muy docteur Ousmane Cissé koku mom mun wax ne ko xamne la amal nañ ko jaajëf bu baaxa baaxa baax biko bari na lu ñoo jaxaso mom si lu bëree bëri ci walu wérgu yarami jurgi gi waaye damay wax naan euh, ñun suñ nguur yi toujours yow li nga xamne ne la war pour nga jox len ko yow di len ko jox bam waye ñom li nga xamne ne leen war pour ñu jox lako ko mun ne duñ la si jox dara fa lañ toll ñom comme niko secrétaire waxe rek mbiri suma robinan project ngi million dollars ñu assé ko moo two years li nga xamne ne ba légui ben yarkati jur mënu la wax ne luma ci gis kon xanga lolu té te démé di ko politique démb rek ma ngi toka kéna wax ne ma gaay ñu ne né lañ jox suma robinan 3 million Mana ko yow da nga xamul li xew waye man mo xam li xew du tok di bako 3 million dollars ma ne ko loolu bi is 26.8 million US dollar la 3 million lañu ci digone pour microfinance de dinañu ko mën lebal ñu ne dinañ jox Gambia uh, Teachers Credit Union 1.5 dinañ jox uh, Supersonic 1.5 ñu sédalé len ko ngir ñun ñu mën sé jot dem len Gambia Credit Teachers Union ba toga ño ñoo waxtaan ñu wan ne ah ñun dé lañ wax né ñun lañ ko jox waaye ba légui dara duggagul fi té lolu open na 3 mois ci gannaaw kon dama naan nguur uh, lu ñoo wax mo ëpp lu ñoo jëf. te toujours su xaalis ñëwee pour euh, lu ko tax a jóg duñ ko fa dugal soo seetee loolu projet bi foo years la moo demal te fu mu nekk two years ak xaaf bi dem na already benn one year xaaf moo si des ba léegi yarkati gisuñ dara kon foog ñu ut pexe nuñ ko neenalee te nag loolu féeg mi ngay dem liggéey bi dafa tardé waaye comme lu jeng wax la rek te bokk na si li nga xam ne sàmm gi daf ko gëm mooy foog ñu gëm suñ boppa te foog nit ñi nga xam ne yàlla may na leen doole ñu ñoo investi su boobaa nguur xam ne ñii caaxaanuñ si luñ nekk su boobaa nguur dina fulawu te am wax yu bari dama ko wax nañ gëna yaatal rek gën ci dugal réew mi yëpp jamono ngay ñëw togu bobu nga tok yow muy yow muy président mom la ñëw jël sa loxo tek fa kat mu tok fa mu neex la naari la su boba so déggé né jox ma dafa fekk amé ko sa loxo te lool yëpp mun nañ ko ci kanam because suñu biir ay jàngkat fa nekk ay université degré fa nekk ana sanga kat yi demb ak kat yi tay bokut te li njëriñ bu ci nekk bari na damay wax naan western country lutax so fa démé ñu nekk dëkk yu gëna rich tay pharmacie ñoo fa loolu war naa mën a am Gambia tey ñun te yàlla def na tey xam-xam boobu yëpp a ngi suñu boppay yomba na nguur ñëwal rek nga diisoo ñun ñu won la yoon bi naka la rek nga def ko loolu daal laa si mën a tontu sax so oncle Badou man suma bi si yow mooy naka nga gisee élevage yi démba ak élevage yi tey. yarum démba su fekkoon ne la loolu am démba mu am tey ba ba tey lu kon yar bi gën naa gën naa dem ci kanam parce que man mos naa am projet boo xam ne nii. si nguuri Jawara xaalis bu ñu joxoon ñu dem jënd xar Sénégal ñëw doon ko jaay si taay bi Tabaski bi dañu jox xaalis ñu dem jënd xar yar ko lu mat 5 months 6 months xar yi suur rafet ñu yóbbu ko abu ko dem jaay ko loolu su fekkoon ñu ngi ko doon am ba tey lu ko noon ñun passé nañ fu ñu toll nii te boobu ba tey tabaski bu jot dañu dem abu ko jaay xar ba tey jii nii tabaski bu jot dañu dem jaay xar te xar ñoo jaay ñoo ñu ko jëndal suñu boppa ñoo ko yaral suñu boppa di jëndal dund bu seer di yóbbu di jaay kon suñ amone ñu ñu dimbalé yar gi dina gëna yomba gëna yomba yomba si kat yi baax lool si kat yi tamit waaw suma second question uncle Badou moy yow bi nga joiné sama ji ba légui lan ak lan nga si jàngé waaw bu ma duggé si sama gi luma ma si moy ma ngi doon dox tanka yu yéex waaye fu mekk yi gis naa ne suma tanka yi mu ngi gën gaaw because sama gi man ñu ma fekkon ma nga yar i citizen ñuy wax jalunke waye tay ji nga xamé ci dugg si commencé dugg si ladum bi gis na né na bi na na maya gaaw mo gëna baax niki citizen bi. waaw kon ñu ngi santa wa Badru TV ben yoon di leena gërem comme ni ñu ko waxee euh, ñu nag ñom ay doomi ndey leen sotti ci la ak def ci di wax ne amna kaadu ngir mandé bu bari pour suma membre di sama Saamaga association muy gori muy jigéen yi muy ndaw yi waaye nag spécial gërmande pour organizing committee bi social committee bi tey soo xoolee li yëpp sotti ñoom la xar nañ si seen tànki tibéy def nañ si seen xaalis seen waxtu seen time jël nañ ko si lépp ay fan a ngi nii démb nekk nañ fi fii ba four o'clock si guddi ñee nañu ba three o'clock loolu yëpp pour gis ne bëgg rek ne mbir mi dem na kanam dinañ si oo ay tur ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mënuñ la naa ñàkk oo xam ne ne seen bopp lañ ko defal waaye dafa am lu mag yi wax ñu ne ko def lu baax nga seedal ko ko wax ko ko te ku nekk si tool di béy wax ko jaajëf daf ko yokk jom ku mel ni Youssoufa Pané ñu gën koo xamee si Bamba du Maas xar na si tànki tigéeyam def na si alelaam ñaax nañu ñun suñ boppa ñi nga xam ne tey ñoo jiite at saison bi dafay toog di ñooy fàttalil lu nekk dem leen ba nga xam ne léegi-léegi te xëccoo dina am suñu diggante moom waaye loolu yëpp luñ si namoon rek mu rafet même ting moo am si ku ñuy wax Beboy Johnson di same di wax ne rek euh, ay nit suñ bokkee mbir rek da ngay ku nekk da ngay won sa morom ne la gën a bugga kon ñooñu foog ñu sant leen gërëm leen kon euh, Youssoufa euh, Bamba du Maas ñun laa sante di laa gërëm Bébooy Johnson moom tamit ñu ngi koo sant di ko gërëm di ko xaasal bu baax a baax a baax Ousmane Koudia bi ñu gën koo xamee si King fan yëpp yaramam dafa tawat waaye feebar boobu terewut koo toog jóg na ñëw na bàyyi na soxlaam def na lépp ba Mixo ne taxaw na si ba affaire rafet te dox nañ ko li nga xam ne presque mun na weer ku ñëw Salif Koudia bi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi moom tamit wax dëgg la def na si lu xarañ xarañ sonna na si def na si lu nekk wées na si time am def na si alelaam ba si ajaata ku jaabi ñoo ñëpp si social comité bi ba suñ doomee suñ jarbaat yi ñu mel ñoom Ousseynou Demba ñoo fi nekk ak ñun fii si guddi di enu bagage yi di wàccee te su bagage yi suñ tamit ñoom ñooy nekkaat si loolu yëpp kon di wax ne daal ñu ngi jaajafal ñëpp di jaajëfal social comité di jaajëfal waa sàmm gi di jaajëfal media house yi nga xam ne ñëwoon nañ attend press conférence bi di ñaan fekkee ko ay at yu bëree bëri te lu nekk suñ kanam yàlla yombal ñu ko bañ ko mën a def si jàmm ak salaam ak dal ak barke kon Badru TV ñu leen a wax ne jërë jërë ngeen jëf